dal leen ak jàmm mbokku internet yi seen football TV nii naa leen bu baax ziar leen képp koo xamante ne nga bees ci chaîne bi bul xaar abonné cliquer ci cloche boobu ngay vidéo bi ndóor na ma ko seetaan bul fàttee tamit vidéo c'est très bi dama ko jagleel ak Bouna Sarr mu nekk ñaari joueurs yu xamante ne bu ñu leen soo gis liste bi fii ci réew mi ñu bëri kontaan nañu par rapport ak seen kàddu yu xamante ne waxoon nañ ko ne France nañ bëgg jouer jàpp naa ne nag tey jii après match bi ñu def dina bëri ñu xamante ne meroon nañu kontaan nañu donte ne am ñu xamante ne nag kontaan nañu si ndax ñaari pàcc la ñi nga xamante ne nag kontaan nañu si woon comprendre nañ leen bu baax ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te voilà boo déggee yenn kàddu yi du la neex maintenant nag tey dañoo jàpp ne rassuré nañu Sénégalais yu bëri xam naa ne dañu rassuré ñëpp mënul nekk ñëpp mënuñu kontaan mais match bi ñu gis tey par exemple bu ñu jëlee le cas de Nampalys Mendy par exemple waa ju xamante ne dafa disponible ragalul day dalal xelu de ñaari défenseur que ça soit Pape Abdou Cissé ak Kalidou Koulibaly ressortie de bal bi gaaw na du mu ne mooy Verratti mais xaw na nduróo Verratti ci côté boobu maanaam bal bi ñu ko joxee tak première intention a gaawee Cheikhou Kouyaté moom dafa gaaw xam nga euh, passe entre les lignes da koy passe nga gis ne même bii yëpp moom da participer ñaari bii yëpp moom da ngay gis ne Nampalys Mendy au cœur du jeu fay gis mu joué day combiner dafa simple tellement dans la récupération mu ngi fi duel yi mooy fi même si tey ñu yor position bi moom tant que position bi da ngeen gis benn Nampalys Mendy bu intéressant Nampalys Mendy benn cet rek la am mooy taay bi bali kaw yeeg yooyu fii bi ñoo ngi koy teg si suuf fu demoon Liga espagnole dina fa mën a te dafa am maturité ci jeu xam nga joueur mën nga football nii xam nga mais doo am maturité ci jeu sa jeu day day bëri ay déchets techniques da ngay gis ne Nampalys Mendy loolu amu ko passe yi muy passe yu bon barewul parce que moom à chaque fois que muy jox bal bi day xam ne moom bu joxee bal bi coéquipier am xëy na coéquipier am na lu mu gis lu xam ne moom gis ko dinaa bal day andi facilité da ngay donc da nga koy ne dafa yomb de l'autre côté yombul xëy na moroomam bu fa nekkoon dina jéem a compliquer àddinaam moom Nampalys Mendy du compliquer àddinaam et que tamit wane na fraîcheur physique parce que ñu bëri tamit caaxewoon nañ mën première bokk naa si ñi xamante ne voilà li mu amul temps de jeu euh, jaaxaloon na ma trop xam nga voilà maintenant nag rassuré nañu quoi laataa kan bi il faut que ñu ñu xool Nampalys Mendy mën nañu apporter waaw am déet moo tax la fekk mu tuddee tey c'est intéressant franchement euh, instant yi ñu woo ko Coupe d'Afrique jàpp naa ne euh, du nekk scandale du soppe Sénégalais yi ndax tey franchement li mu wone franchement dal na xel quoi beneen jour bu xamante naa ko wax muy Bouna Sarr ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk quand seeni club bi ñu fi joué noonu moom itam bi muy soog a ñëw fii Sénégal cool yi bëri na war ñu ko woon convoqué mérité ko jàpp naa ne tamit tey bëri na ay Sénégal yu xamante ne mere woon nañu Bouna Sarr tey am nañu mbégte ci moom si volonté bi mu am si technicité bi que ça soit offensivement défensivement da ngay gis ni c'est un joueur de très haut niveau franchement et que jouer na si équipe yu gën a mag loolu c'est important le fait nga nekk baax na minute pression bi fu mu nekk xam nga euh, li ñu la koy teg ci entraînement ak li ñu la sant boo ñëwee fii équipe du Sénégal boo ko appliqué équipe bi mën na si jëriñu man gis naa ne aussi moom tam dafa disponible du laaxatu si des jours yu xamante ne ragal ñu lii ñuy def gëm nañu seen bopp et que gis naa aussi tamit combiné lu bëri Kalidou Koulibaly ragal benn pour jox ko et da gis ne à chaque fois que même bu ñu yorul bal bi positionnement bi dafa baax bi toujours de bien aligné donc c'est un joueur boo xam ne tey grand match la def déjà que defoon na match bi passé bu ñu joué contre Togo mu bëri jàpp naa ne instant jëlee fi Bouna Sarr di yomb xaw ma nag noo leen ko gisee si commentaire yi wax leen ma si seen xalaat ak seen gis parce que dañoo nekk ñaari joueurs yu xamante ne am ñu temps seen club mais tey quand même def nañu match bu baax léegi mbokk yi leen bàyyi ngeen wax ma si seen xalaat ak seen gis-gis a yaatu leen ko mas a fàtte dinaa jël jour par ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal ba TV